déterminé à bâtir l'Afrique. di ñaan nag corona bi génn fi mu gën a gaaw di ànd ak suñu naataango presse sénégalaise bi yëpp di leen rafetlu di rafetlu seen teewaay ànd ak président Babacar Ngom di ki nga xamante ni moo sàcc groupe Sedima ñu ñëw lépp jëm si mbirum agriculture agro business agriculture mooy lépp

di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci daje bii nga xam ne daje nañ ko fi tey may jiital nag ci nuyoo bi kilifa aada yi ci Sénégal kilifa diine kilifa àdduna kilifa cosaan ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu itam bokk yi fi teew xarit yi fi teew am di jàmm yi fi teew di nuyu di gërëm presse sénégalaise bi nga xam ne ñoom itam def nañ déplacement ñëw pour couvrir waxtaan bi di nuyu ñëpp di sant ñëpp gis nañ leen gis nañ seen teewaay bu dul woon jamono Covid xëy na kon doon na gën a fees sax nii waaye bi ñu laajee borom kër gi daf ñu wax ne salle bi ñee ñaar téeméer nit la mun a jël ci jamonoy Covid ndax foog ñu respecter distance gis naan sax xaw na jafe moo tax dinañ jéggalu presse sénégalaise bi nga xam ne ñoom ñëpp bëggoon nañu ñëw bu fekkoonte ne conférence de presse la ñu def mais nag defuñu conférence de presse lii ma def nii man dama ko tudde prise de parole prise de parole de Babacar Ngom pour s'adresser aux compatriotes sénégalais pour s'adresser à la jeunesse sénégalaise mais aussi pour en profiter pour éclairer un problème ki commence à trop durer ngeen baal ma ñëwuma pour werante ñëwuma pour xuloo ñëwuma sax pour tontu dama ñëw rekk pour leeral maa ngi gërëm ñuy toog mu bëggoon leen wax ne préparé wuñu dara laajuma leen ndax samay nawle lañu kat du ma wax fii loo xamante ne ñu may dégg xam ne amut kon li ciy topp sax danañ xam ne loolu lu ma ci wax mën nañ ko weddi laajuma leen ban question ngeen may posé waxuma leen itam posé leen ma tell question dama ñëw je me suis offert à vous pour éclairer nos compatriotes sénégalais sur sa sujet, mais sur tant d'autres sujets que vous aurez maa ngi ñaan yàlla dimbali ñu ba lii ñu nekk muy mbas ñuy wax épidémie ñi di wax pandémie yàlla na ko yàlla jeexal ci àddina bi yépp dañu delluwaat ci sunu sago maa ngi nuyu sunu bokk yi jóge jilax jërëjëf loolu dina yomb dañuy wax problème mu Babacar Ngom ak Ndengeleer dama bëgg leeral àddina bi que ne tiitre foncier boobu ñuy wax titre foncier Sedima la te Sedima c'est une société anonyme moom moom tiitre foncier bi li ci topp mooy diggante 2011 jëm 2012 lañu jàpp ne dañu bëgg a investir ci agriculture ñu di ko dox di ko wut ba yàlla dogal ñu dem kër Samba Kane maire bu kër Samba Kane di député maire honorable député maire Ibrahima Khalil Fall yàlla dogal na mu ngi nii toog xëccoo suuf mu bëgg loolu mu leer xëccoo wunu suuf dëgg la xëccoo dëgg ci boppam moo jaral lu nekk mais suuf jaralunu ko 2011 2012 la ànd ak xaadim sàmb mi toog wax dafay am seede ñu dem kër Samba Kane mu teral ñu teranga bu ne joxoñ ñu nee nu mën na noo jox 500 hectares kër Samba Kane ñu sant ko gërëm ko bu ñuy ñibbi si oto yi sax da ci def des ay xar ak kilifin ñu indaale bi ñu ñëwee toog ab diir xaadim sàmb mii wax ma ne ma fii ci Sindia am na waxtaan bu mu waxtaan ak maire ba waaye nee na ko am na suuf su mu ñu mën a jox te moom mu jàpp ne foofu sax mooy gën a jege ñu waxtaan ci ma boole ko ak suma ay directeur ñu dem seeti maire ba boobu jamono maire ba fa nekk Ousmane loo la tudd mu ngi dund bi ñu defee demee gis Ousmane loo dellu cinéma nee na dañuy def projet ñu ñëw défendre projet bi ci kanamu commune bi buñ ci juboo ñu doog ñu mën a attribuer ñu def ko ku ñuy wax Birahim Sarr nekkoon directeur de ressources humaines bu Sedima ci jamono boobu moo ko jiite tey moo nekk directeur u Sedima Mali Birahim Sarr ak ñi mu àndal ñu dem waxtaan ak maire ba ñu dellusee man mii liñ ma wax mooy 46 defe naa 46 xaw ma cinq conseillers ñoo daje bi ñu waxtaanee kenn rek moo ci defoon abstention tout le reste dañu accepter projet bi ñu waxtaan ñu wax ñu modalité ña fa nekkoon di béy waa dëkk ba waa jilax waxtaan ak ñoom ba ñu juboo lañ ci waroon def ñu def ko pour ñi dañ leen dédommagé ak lañ war a fay ca mairie ba kayit gi dina génn ñu dem ca mairie ba def naa jamono boobu 30 millions lañ fay on parle de 2012 ñu defal ñu délibération délibération sur 30 300 euh, euh, hectares kayit baa ngi nële mun na feeñ fii voilà mu ngi nii mu ngi daté le 4 décembre 2012 4 décembre 2012 lañu communauté rurale bu Sindia defal délibération bi man boobu jamono mosuma dégg turu Ndingler xawma ndax Ndingler am na wala amul bi ñu doxee tuuti man xamaguma fan la tool bi nekk defe naa ci diggante 2013 ñu jàpp bis pour yóbbu ma won ma tool bi ñu ànd Xaadim Samb mu ngoon ci délégation bi Ablaye fay mu ngi woon ci délégation bi moom boobu jamono conseiller la woon ci ci ci commune si communauté rural bu Sindia Sarr ma mu àndal conseiller la woon ci communauté rurale bu Sindia kii nekk tey maire si euh, Sindia ñu koy wax euh, nu mu tuddati Thierno Diagne dafa koy fàtte parce que kenn mënu ko jot téléphone Thierno Diagne boobu temps moo nekkoon premier adjoint au maire ñun ñoo ànd ma ànd ak suma ay collaborateur xëy na am na ñeneen ak ñeneen ñu ma ñu dem ba ca tool ba bi ñuy dem oto bi day daw di daw di daw ba mujj ma naan man de xam naa fi ñu jëm sori na àll yi ñuy romb yëpp mun ñu ñu woon a utal fu gën a jege ba ñu egsee ba ci tool ba salaamaaleykum ñu ne cëpp commencé dox di jéem a avancé di dugg di dem ma ne taxaw leen yaa ngi toog xaadim ñenn ñaa mu ngi ne fi lañ nekkoon ma ne taxaw leen wan leen ma rek fan la tàmbaleeg fan la yem joxoñ leen ma parce que mënuñu ko woon a wër ndax àll bu fatt boo xam ne burus fatt fees del ñu naan ma guy gële fële ngay séen di ma joxoñ loolu laa ci am le premier jour ñu ñibbisi biñ toogee ab diir ñu xalaat ne dañ ko war a liggéey déggaguma ndengaleer de ñu jël société bu ñuy wax Antracom defe naa ñi ngi fi ba tey def ñoom contrat fay leen trente et million millions facture baa ngi fi contrat bi mu ngi fi bu fekkoon mën nañ ko agrandir wala ngeen def ci copie Antracom bi leen fayee trente et million ñu yóbbu seeni machine ci àll ba commencé liggéey ba mu yàgg ñu daw parce que machines yi day paan liggéey ba metti na attanuñu ko ñu daw dem ñu dem wutiwaat beneen société bu tudd Anne et frère yóbbu leen fa fay leen taalu la ñu fa fay 77 millions defe naa moom la 77 millions wala waaw la ñu fay ci boobu ñu ngi wax 2013 78 millions wala 77 millions wu 2013 woote na ak 77 millions wu léegi ñooñu ñoo débroussaillé ñoom ñoo toj tool bi ñoo ko nettoyé ñoo ko terrassé ba mu tàlli ba mu tàlli ba mu tàllee ñu toog at yi ci topp ñuy am lu matul ñeenti nit juróomi nit yoo xam ne bu nawet jotee ñu ñëw di fa bay ñu toléré leen toléré parce que gis ñu ne problème am na foofu dinaa fi taxaw parce que dinañ ma wax kon loo fa wuti woon bay négocier suuf waaw est-ce que mën nga am délibération 300 hectares li ma war a préciser foofu mooy bi ñu ma yóbboo pour installer ñu nag effectivement foofu lañ ñu waxee ne 300 hectares amu fi 225 moo fi am ñu jël 225 kon ba fii ñu toog nii di wax vingt cinq hectares la am loolu dafa war a leer bu ñuy wax trois 300 hectares deux cent Sedima cinq ectare lañ ko jox ci lañ ko installé waaye biñ ma joxee plan yi bañ doxee tuuti ci kanam gis naa ne quinze hectares yi ci manqué mu ngi ci plan bi dañ ko def en pointillé boo ko génnee ñu wane ko léegi. boo xoolee plan bi non du bii bi nga bi nga weesu bi nga weesu bii li ñu def en rouge. mooy deux cent vingt cinq hectares pointillé bii ngeen gis mooy soixante quinze hectares yi waaye soixante quinze hectares yi pointé yi dafa féete ak dëkku jilax waa jilax ñoo ko fi bàyyi séddale ko seen waa dëkk waa jilax ñoo ñoo ma jox ñoo ma délibéreel trois cent jox ma deux cent vingt cinq téye soixante quinze yi séddale ko seen waa dëkk boo xoolee plan bi jilax moo féete à gauche ni ndengleer mu nga féete à droite génneel plan bi ci topp plan bii nag mooy wax lu bare bari ci yëf yi parce que plan bi moo lay wan ferme Sédima mu ngi nii 225 hectares titre foncier 2247 Mbour plan bi moo lay woon quinze hectares yi nga xam ne moo manqué woon ci sunu 300 hectares 75 yi waa jilax bii ñoo ko séddoo dëkk bii nag jilax ñoo ma jox seen suuf si suuf si mu ngi takk takkaloo ak fii ñuy wax plan REVA plan REVA Sénégal ko moom man mii ci laa bokk ab Ablaye Wade ko fi defoon plan REVA bii ci jilax la bokk kenn werantewu ko yi ñu ko jox muy Sergio di italien campagne bi passé doon employé mille personnes mille personne waaye kenn werantewul ne plan REVA bii ci jilax la bokk Djilaxa ngi nii à un kilomètre de la ferme Ndingler a ngi nii à six kilomètres de la ferme diggante Ndingler ak ferme Sedima six kilomètres àll kese la dañoo bëgg a béy mën a béy àll ngi nii nanu la ko wër yépp nag àll la fu nit béyee am na fi xam nga li waa ji waxoon parcourir Sénégal jékki-jékki ne j'ai jamais eu vu autant de rien c'était quelqu'un qui venait de l'étranger il a fait tout le tour j'ai jamais vu autant de rien parce que y a loolu moo am ferme bi tey di ferme Sedima bi biñ ko jotee ak léegi investir nañ fa un milliard et demi ëpp na ko sax un milliard et demi lañ fi investir ferme bi biñ ko jotee 2013 dañu dugal demande pour am titre pour am euh, bail dañu dugal demande pour am bail mu def ñetti at ba ñeenti at jaar fi mu war a jaar yépp ba état du Sénégal immatriculé ko au non de l'état kon foofu sax damay tontu ñuy wax ne xaritu Macky Sall la moo ko jox moo ko jox décret moo ko defal décret du benn dëgg xaritu Macky Sall la waaw man je si je suis son ami donte kon sax defe naa daf ma xaw mere jamono yi waaye loolu moom leneen la waaye Macky Sall mosuma toog ak moom ma wax ko may ma metre carré man Babacar Ngom ñëpp ngi nii taxaw mosuma ko wax may ma mètre carré Macky Sall terrain bii mosu ko dégg ci sama gémmiñ barki sëñ Touba mosu ko dégg ci suma gémmiñ bi ma mujjee toog ak Macky Sall war na mat xëy na léegi ñeenti weer wala juróomi weer gannaaw bi ñu dajalee mooy bi ñu woowee les patrons les patronats bon bon loolu leneen la waaye man ak moom ak yàlla kenn raxuñu ñu toog war na toll ci ñeent ba juróomi weer bis boobu laa ko mos wax ne ko président man nag jëfe fait l'objet de beaucoup d'injustice te tey nag fas naa yéene wax la ko parce que lu ko mooy bu ma daan toog ak moom lu ko yokk wala lu yokk Sénégal rek laa koy wax mosuma ko teg sama soxla bopp ministre bii tey Abdoulaye Daouda Diallo bi mu toogee nekk ministre des transport ma ñaan ko audience lu ma ko ne ñaani mooy tali bu jëm ca dëkk boobu moom laa fa uti woon mu woo directeur Ageroute ñaanal ma ko ko ba jóge fa yëf yi defaruñ ko kii fi nekk tey Omar ma ñaan audience lu ma ko doon ñaani tali bu jëm foofu mu woote itam sama kanam Ibrahima njaay Ageroute ñaan ko ko ngeen baal ma tali boobu léegi ñu ngi koy defar mosuma ñaan benn mètre président li ma ko wax ci waxtaan boobu bu mujj boobu mooy j'ai l'objet d'un parce que dama am tool boo xam ne maa ngi ko jëndoon depuis 1994 boobu fii ñu bari xale la ñu waaju dugg 94 déeni biram ndaw am naa fa turandoo bu am vingt et quelques années déeni biram ndaw ma jënd fa tool sama doom yi fa lañ daan fowee damay jënd ay kuwaat kuwaat moto bàyyi ko foofu ñetti kuwaat dañ dem yóbbu suñuy sandwich di fa di fa weekend di fa nangam yóbbu naa fa mag ña màkk tabax jumaa def fa lu ne ca dëkk ba am fa ay bu ñuy wax affaire titre foncier dégg ngeen titre foncier berte tubaab la lu mu amoon cinq 5000 eh, eh, mètres carrés non 5000 hectares 5000 titre mu it àll boobu ak dëkk yi sax moo ko moomoon loolu fii la ñu fekk man sama tool boobu nekk seulement 19 hectares duma ko sax tudd mais xam na ki koy def bu ki ma ko def bu ko déggee dina ko xam dem jël ko di ko daggate di ko jox ay ñeneen tool boo xam ne ba ma koy jënd kenn bugg ko maa ngi kayit yëpp ñu jaay ma ko ma dugal papier pour régularisation mu bloqué ko bañ jël tool bi di ko séddale ma muñ ko kooku wax naa ko président bi ci des ma jënd tool boo xam ne 1997 commandant de brigade gendarmerie ba bu jam ñaajow ci jamono boobu ak euh, nu mu tuddati euh, ki nekkoon sous préfet ñoo ma booleeg paysan yi ma ko jaay waa dëkk wa ñu jaay ma deux hectares ma xëy xëy deux muré naa ko ba mu daj clôturé ñu xëy xëy daaneel mur bi ne dañ koy jël dafa am lu ñu fay def ma ne xanaa bala ñu koy jël di fa def leneen ñu woo wax ma foofu it wax naa ko keroog bi ci topp nag mooy fii Sedima nekk waaye gars yi du ngeen ñu dimbali ngir yàlla fii Sedima nekk man maa ko jënd Babacar Ngom moo ko jënd nekkul sax ci turu Sedima mille 1992 titre foncier bu ñu waxee caaxaan boobu temps xam nga nu ko tuddee woon kan moom mën a wax turu place boobu ah xel comme lañ ko tuddee woon parce que kenn mënu foon a dem ndax yoon wu naqari boo fa demee guy yi garab yi lépp mooy fii tey Sedima nekk siège Sedima ci autoroute bi maa ko jënd titre foncier mille 1992 waaw foofu nag tey li fi am mooy bi ñuy defar autoroute bi dañu ñëw ne dañ ci soxla 2000 mètres carrés 2000 mètres carrés ma ne garaawul 2000 mètres carrés autoroute la ñuy defar njariñu ñëpp la kooku moom lu ma lu ma joxul dara sa baax na ñu dem a dem xëy xëy ñëw daaneel mur ba jël presque un hectare 8000 mètres carrés et quelque booba ba tey ñu ngi ko def 2011 bi ma toogee moo wax naa ko ma ne ko 2011 lañ jël sama titre foncier. bretelle autoroute bu Eiffage bi ci sama titre foncier la jaar kon ñooñu di wax ne ñun samay dëkkandoo lañu nga xam ne fi la nu fekk ba fekkaat nu fi ba fekkaat nu fi dañoo waxtaanul rek ñun ñoo fi jiitu boobu àll la ñu am titre foncier ñu ñëw dagg suñu foncé foncier jaarale fa bretelle boo xam ne mënoon nañ ko liggéeyee neneen ñoom ci seen bopp am na tubaab bu ma waxoo ne ma lii bu doon suñu dëkk kenn ñu ko bu doon France nga yor sa titre foncier ñu ñëw rek màbb daaneel say mur jël lépp te kenn waxtaanul ak yow avant avocat yaa ngi toog ci bi yaakaar naa xam nañ ne loolu amul ci benn dëkk bañ ko defee ba tey jii on est mille 2020 kenn fayuñu ba pare nag ñu bëgg ñoo may coow nag def seen i délégation takk seen i morceau wax ne Sedima dafa tëj mur bi ñun suñu titre foncier rek la ñu nekk nekkuñu feneen loolu moo am euh, xëy na gudd na maa ngi leen di jéggalu mais il fallait que ma joxe léegi nag titre foncier bi li ko indi 2015 la ñu am bail bari ngay am bail état service yëpp administration dañuy dem cadastre urbanisme domaine anat ak xaw ma ñan ak ñan ak ñan bari nañu ba ñu def euh, comment commission de droit domanial des comme ça ñu def immatriculation au nom de l'État du Sénégal ça que terrain bii ñuy wax tey dafa tollu jamono état du Sénégal moo ko moom daf ko immatriculé à son nom moom ko bi mu ko moomee ba pare la koy doog a loué Sedima mu loué ko Sedima Sedima di fay luyaas bi trente et quelques millions quelque chose comme ça par année ñu dugg ci deuxième année bi ci laa ne nag terrain agricole dëgg dëgg nag nga nekk ci bàyyi di fay ay par par année nañ demander session définitive nañ ñu ko jaay ñu dox ko dox ba 2019 bàyyi bi euh, titre foncier bi génn ñu jaay ñu ko ñu fay ñu jox ñu titre foncier ma nga ci kër lii mooy wax titre foncier nag dama yaakaar ne sunu constitution moo ko protégé dama yaakaar ne aussi dëkk yoon mooy dox amul kenn ci administration walla kenn ku mën a wax ne dañ ne corruption de nangam nangam lu ne wax nañ ko mosul am dafa jaar ci yoon bu doon corruption Macky Sall bu ma bëggoon may titre foncier du def huit ans un an doy na ci mu créé titre foncier ñu jox ma je vous mosuma ci wax ak moom ci terrain bi ñuy wax c'est un titre foncier au nom de Sedima lii mooy wax ci bàl leen ma nag ma wax waa Ndingler la ma fa yóbbu woon moom mi ñoo àndoon Khadim Samb maire u Ndingler leur propre maire moo ñu suggéré woon parce que jotante nañ téléphone xamante nañu def délégation ñu dem waxtaan ak ñooñu dëkk bi parce que comme boo jëwee ci dëkk xam ni ñu def ak waa Jilax Gana Gningue le maire de Ndingler waa Jilax ñu ngi nii biñ ñu joxee suuf soosu ak léegi yaakaar naa ne teraanga bu nekk ñu ngi koy seex ak ñoom kenn déggu leen ci coow léegi sax la ñu commencé wax ñoom ci ci coow mais Ndingler ba ñu fa demee dañu ñëw pour waxtaan tànku mbokk parce que ay dëkkandoo la ñuy doon man Malika laa nekkoon am ak ñoom jàmm ak feneen ak feneen ak feneen foofu yëpp ñu am jàmm kon bu ñu ñëwee ci gox boo xam dëkk yi ko wër ñu ne ñu Ndingler surtout que am na fa ñu fa doon bay jamono boobu ñu dem waxtaan ak ñoom xaadim ne bu xëy na yóbbaale leen lu suukar wala kii bi ñuy dem ñu yëkkati 2 million ne leen lii nag defee leen ko nangam nangam ñu ne ñu bëgguñu parce que foofu ngeen di bay sax ñun ñoo ko moom lii moo indi wax ji waxtaan wa yàqu ñu jóg ñibbi ci lañ gëj amanteeg ñoom wax di leen gëj jëflante ak ñoom bëgguma mu gën a gudd je pense que pour le moment ci point boobu fii laa ci yem bàyyi leen peut-être bu amee yeneen précision yu ngeen ci soxla ma joxe ko